baax a baax a baax a baax ku ñu gis xam ne tey ñu ngi fii ca buntu CNG ah, ginnaaw nag ki nga xamante ni moom mooy wala ñu ne écurie Lansar ndax gis nga ki nga xamante ne moom mooy tonton Cheikh Niang moo taxaw nii ci sama droite ki nga xamante ne moom mooy Père Max manager Siteu te nekk sama gauche tey nag leen fi indi su ma juumul mooy gannaaw ba recours bi génnee ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo ba tey conservé li nga xamante ni moom mooy titre roi des arènes am gis nañ nag coow li bari na Père Max dégg nañ ñu ne dañuy def appel voilà dafa mel ni loolu moom moo leen fi indiwaat dañ koy bàyyi nag mu nuyoog bokki antonori mu ñëw ci tonto Cheikh Niang maa ngi jërëjëf euh, di sant yàlla bu baax julli ci yonentam bu tedd bi gërëm sunu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi comme ni nga ko waxee rek affaire bi moom jarul yàggal nañ dem direct rek ci biir bi li nga xam ne moo ñu yëkkati comme ni nga ko waxee noonu la amee yoon may nañu bu làmb jeexee ñu atte ñu lu ñu d'accordul ñu bind recours bind nañu recours déposé ko commission règlement et discipline maintenir décision arbitre bi te loolu convaincre ñu ñun gis nañu ne liñ àtte tegu tegewul ci yoon moo tax nag ñu bind def appel nga xam ne bi yoon bureau bi moo koy àtte loolu mooy doon sababu suñu suñu suñu ñëw tey moo tax dugal nañ suñu appel. d'accord dugal ngeen appel mais gis nañ ba tey coow li dafa woy que ni Père waxul si te dëgg ndax instant bi recours bi Père Max waru ci wax nga gisee dem commentaire ak ñi ci génnaat wax ne Père Max est-ce que du noppalu bàyyi ki xam te ne mooy. wax kenn du ma ko jàngal ñooñu di wax ñëpp. riir may leen indi mais bokkuñ ci làmb ji daanaka dañuy wax rek ñun dafa am lu ñu yoon may mbër mi waxuñu def leen lii ñun ñoo koy def ndax suñu droit la du mbër mi moo ñu koy sant ñooñu di wax dañuy wax rek waaw ñooñu li ñuy wax seen yoon nekku ci et puis bu ko ñooñu da wax beneen camp bi dañ naan dañ ñoo wax demal nga defi ko waa Kër Siteu bul xool commentaire rek ñu ànd fële ñooñ loolu arrangé wu lañ. mais am na ay chroniqueurs ñu ne. chroniqueurs yooyu it dañoo géré wul écrit gérer wuñ écrit ku ci ger wuñ écrit di nga défendre intérêt say poulain dañuy wax rek tegewul ci xam-xam. gëm defee appel jàpp nga ni li ngeen bëgg mën ngeen buñ ko gëmutoon duñ ko def. buñ ñu ko joxul it dañ naan joxuñu ko mais ñu liñ gëm mooy la ma waxoon laay waxaat rek ñun am nañ ndam. mais ba tey da nga gëm tamit xeex bi day wali. non yooyu sax du ma ci débat tey li ma indi rek laay wax. waaw ndax yooyu waxoon nañ ci doo continuer rek di wax benn loolu amul sens. sababu daal li ñu indi mooy def nañ appel ndax li ñu àtte ànduñu ci. est-ce que nekkul tamit Siteu lu mu bëgg a bëri ak Modou Lo ñu arrangé wu ko moo tax. non loolu seen wax la man du ma gérer détail. Ah. Siteu fi ne capaacoli la di mbër mu ñëpp soxla. loolu lay waxu dëgg. yaakaar daal yee capaacoli la mbër la mu ñëpp soxla li ñuy wari am na ko saf na xorom bari na mbooloo. Ah. to bésam day neex. léegi moom ba tey lan la waxaat li ma la ah. ñun li ñu war a def duñ ci tàggu poulain bi ñun ñooy def li ñu war a def du mbër mi moo yax defal lii defal lale ndax mbër mi duñ ko laaj dërëm ci loolu ñun ñoo koy gérer suñu bopp ñun suñu écrit noonu lay doxee bokkuñu dooku ñoom bëri yoo xam ne dañu bëri ba noppi ñu dagg ci reliquat ba dugal ci recours déedéet ñun ñooy bureau bi moo koy def ak président Cheikh ñu déposé boo appel war a amit ci bureau bi ci école de lutte bi lay jóge kon ñun li ñu war a def rek la ñuy def ñi wax nag dañoo xamul rek ku xamul nag da koy bàyyi muy wax. Ah. Mhm. lan li nga xam te bi tam yow lan nga ciy wax tey waa CNG tey ban message. non amul CNG amul li ñu leen wax ndax leen leen di li ñuy réclamer mi ngi ci lettre bi ñu bi ñu dugal. kon ñoom buñ ko ubbe danañ xam li ci ne kon ñoom amuñ luñ leen di wax. ñoom dañuy ubbi rek àtte. Ah. waaw léegi buñ ko joxaatee victoire moom. non ñu xam ne joxe nañ ko mais ba tey ànduñu ci ñun nu dul ñu jox ñu ndam leneen luñ def dañ naan dañoo def lu leen neex. parce que ah. loolu gëm-gëm boobu moo tax ñuy ñuy dugal recours ak di def appel ah. parce que dañoo gëm ne liñ gis jël am na. tonton Cheikh Niang maa ngi Fatma maa ngi lay fay bu baax. di sant yàlla di julli ci yonent bi sant suñu ñaari wayjur vraiment di rafetlu aussi seen teewaay fii tey ci aussi ci arène nationale. di taaxeerlu aussi seen ay laaj ñu xool luñ ci mën a tontu. gis nañ euh, Modou Lo ak Siteu combat bi bari na coow ñu jox ki ne moom mooy Modou victoire ngeen dëkk recours tamit même chose te dafa mel ne ba tey rafetlu woo leen ni que ne ba tey Modou Lo daan. waaw non parce que dañ koo gisul bu fekkoon gis nañ ko aussi tamit vraiment doon duñ ko ñàkk a rafetlu dañ koy nangu ndax lamb toujours li may wax dafa am ay textes yoo xam ne yi moom moo ko régir CNG indi ko ne kenn ku ci nekk bu la lii dalee ci lii ngay atte woo ba ñu defee la ñu def ci biir stade ba suñu mbër dafa na am modeste bu toll ne dikk taxawaat dem bëre jiwaat ba yàlla def avertissement yi ñu wax ne jël na ko mu jël ko ba ñu xoolee ñun ci suñu biir gis ne sut am na ci contact bi nga xamante ni aussi defoon nañu ko te texte ak réglement aussi tamit may ñu ñu def recours ci la ñëwee def ci recours à notre grande surprise bañ ciy defee recours ñu delloo sil ñu recours bi mais recours bi ñu gis ñun jàpp nañ ne dafa vierge parce que atte wuñ ñu ñun ci texte ak réglement bi nga xamante ni ñun moo nekkoon ci suñu recours donc nag moo taxoon ñuy dellu si waat tey jiyéen comme bee passé commission yi règlement yi discipline lañ ko adressé woon bi bureau bi lañ koy adressé directement parce que recours mën nga ko dugal première instance bi juum ñu jox ko ñi ci des ñoom ñu xool xam ne ñi dañoo juumoon te ñun loolu lañ xalaat ne aussi mooy li nekk su fekkee dañoo juumoon ñii fi nekk aussi dinañ ñu atte ci lu ñu war a atte ñii tamit toujours lu may wax rek man luñ ñu atte lu dul ci texte ak règlement yi nga xamante ne yéen CNG moom moo ko jël teg ko ci euh, règlement wu lamb ñun d' accord nañ leneen luñ ma àttee ci lu dul texte ak règlement rek d' ma ci. kon lii ñu àttee du texte du règlement. non liñ ma atte man gisuma ne texte la wala règlement la. ci naka très bien action bi dafa commencé ci biir géew bi jërul ñuy guddal. Uh-huh. bi action ba commencé ci biir géew ba. Mm. mujjee ci kaw saako ya sut am fa. Mm. ñoom ñu ne bis waa ji di daanu am na deux appuis yu Siteu yu nekk ci bitti ñu jàpp ne deux appuis yu Siteu yooyu bu fekkee nekkoon na ci biti te arbitre soufflé woon bien avant. muy muy muy muy mu sud ba di am su boobaa mën nañoo dellu si waat ne kaay leen bëre arbitre wëlbatiku waat dem ba ca vaar ba mu xool ba mu demaatee ca vaar ba aussi ba muy xool xoolul ne aussi tamit sud euh, euh, sorti am na mais ay sud la doon xool lam xooloon ci ay sud moom gis na ne sud amut gis na ne sud amut mu delloo si ne kaay leen bëre kon ñoom buñ xoolee ne gisuñu ne sud am na kaay leen bëre waat ñu mbër mi joxuñu ko defu joxuñ ko sotti sortie délibérée avertiruñu ko jàpp nañ ne kon ñoom lañ doon xool ci VAR ba sud la lañ ñàkkoon a gis ci sud ci VAR bi nag ñun gis nañ ko parce que article 36 ak 37 moom moo wax ci règlement bi nga xamante ne ñun ci la mbër di daane ci lay daanoo article 36 ba 37 boo xoolee ci article 36 alinéa 6 moom moo wax action bi nga xamante ne ñun ñun moom lañ jàpp ne ci la Siteu daane Modou Lo jàpp nañ loolu ba ba ñuy gis la contraire ak lu nga xamante ne nii tamit nag teg sa ko wax aussi. ba ñu ngi dégg ñu ne dopage bi tamit joué na ci test dopage bi loolu lan xam nga loolu mënu ma ci leeral lu bari parce que li ci waroon a leer leer na ñi ko doon wax yëpp fële lañ far ci beneen camp xam nga lan lañ bëgg wëlbati suñuy xel pour ñun ñu bañ a wax aussi ci problème mu recours bi. ak problème mu sud bi ñoom koo mun di wax rek problème mu dopage ñoom seen xel lan la demee ci problème mu dopage lu seen yoon ci dopage problème mu dopage am na beneen entité bu koy gérer lamb am na ñeneen ñu ko gérer lañ ci waroon a wax wax nañ ko lañ ko leeral leeral na ci noonu nañ bàyyi opinion publique bi ak yeneen nit ñi nga xamante ne neen maîtriser wuñ teg si lamb ñu di leen bugg indi ci ne leen ci test anti dopage ci lañ ko dàqee surtout anti dopage bu fekkoonte ne ci lañ koy dàqee bu ñu indee recours bi dañ yéen i seen matul parce que seen lutteur la ko yoon mayoon defu ko comme nag kon duñ jël recours bi kon buñ nangoo recevoir recours bi atte recours bi ñuy defaat appel ñu fas ko yéene attewaat kon affaire antidopage dàqu na buñ lëndëmal xeli nit ñi nañ génn ci boobu débat. d'accord mais yéen antidopage bi CNG wax na leen ci dara. bi CNG waxuñ guñ ci ak moom. ñun kiñ ci waroon a wax ak mooy ñu ko waroon defte te li ma la wax leeraloon nañ ko ñun du ñu yàq suñu temps ci problème mu dopage ñun suñu li suñu temps bi ñu yàq ñun xam nga ci lan lañ ko yàq ci suñu recours bi ak suñu appel bi mais ay problème antidopage moom nañ ko bàyyee ak ñi koy dégg ak ñi koy gëm. léegi léegi appel bi bu ñu ko dàqaatee nag. appel bi bu fekkee dàqaat nañ ko ci texte ak règlement boo xam ne bii leer na ne lii moom moo tax ñu dàq ko nangu nañ ko mais buñ ko dàq ci ay détails règlement rek lañ may indil ne ma dàq nañ ko ci. buñ ko indiwaat sans sans règlement. buñ ko indiwaatee sans règlement ñu toppaat leen ba fa dernier recours bi nga xamante ni tribunal des sports am na ci. tribunal des sports. affaire yi nana nana leen. waaw ah non jaral nañu loolu parce que tamit du dara ci ñun. Ah. diw daan na diw amul problème ci ñun mais xam nga ñun luñ mënut a nangu injustice. comme ñun dañoo jàpp néew ma la mooy dëgg ah, mais ñun jàpp nañ ne ñoo ne ci dëgg. nañ ñu àtte ci dëgg suñ jàppee ne ni wuñ ci dëgg nañ ñu àtte ne ñun nekku leen ci dëgg bu ñaatee ne ñu léewloon ci dëgg rek nangu nañ. kon tribunal boobu ci amee kon porte plainte non non non àgguguma ci yooyu maa ngi fi te yaakaar na fii lay leere rek. fii moom dana fi leer. d'accord Père kon wax wàllu antidopage bi kenn waxuñu leen yooyu ay détails la rek. nañ ko sànni lool loolu wax nañ ci lañ ca waroon a wax. beneen bi mooy. li si ta wane dimanche le 24. su ko Modou yenoon ba pare dóor ci suuf sax dañ koy tàpp tàppal ne ko gàcce ngaalaama. Hmm. wane na njàmbaar ban ba mat sëkk. du bëgg ndam déedéet dañoo gis ne ndam am na moo tax ñu koy topp mais Siteu li mu wane même buñ ko daanoon dañ koy tàpp rek ne ko defarul waat nga ñëw ci course bi waaye koy dem bay tiitaroo trois avertissement tañ ne woon yaa mën fuuf. 3 2 nga ku ku ku koy bàkkoo tañ ne woon yaa mën fuuf kon xam nga ne problème am na. jërëjëf ñi naan kiiwul euh, de. Oh, oh, yow yow déggoo ma yow toujours loo tëgg rax ci përëm da ngay bëgg rek ma wax. aja mbakenteex na liñ doon suivi sur Kewel Info te ci buntu CNG jël ki nga xam te ne moom mooy Père Max ak tonton euh, Cheikh Niang ñu déposé woon nag li nga xam te ne moom mooy recours ba tey déggoo lu ñu wax nee nañ li lu mu leen jara jarul leen ko nee nañ ci texte ak ci règlement ah waaw dañoo dugaloon recours ñu rejeté ko instant bi def nañ appel te neen dañuy defaat nee na même buñ ko rejeté jar na ñu plainte yóbbu kon nag yàlla nañ ci yàlla musal di wax rek ba tey Modou moo